abonné leen ci chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin te activer cloche de notification bi ngir lu wàccati bees ngir man di ko jot ca tàng-tàng ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa soxbihi wa man wala mbokk yi bàyyi xel chaîne bi di yaatal xeltu yin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi balu ñépp xaq di baal ñépp di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu boole ñu baal di am mbégte di fas yéene ànd ak yéen ci waxtaane mbir moo xam ne day dugg ci xaybiyaat yi mbokk yi buñ ne xaybiyaat mën nañ cee dégge ñaari mbir benn mbir bi mooy loo xam ne am na ba noppi waaye bëtu doomu aadama tegoogu ca wala munagu caa tege loo xam ne am na ba noppi waaye bëtu doomu aadama tegeegu ca wala mënagu caa tege waaw lu mel ne ki yàlla subhaanahu wa taala mbiram xaybu la lu mel ne ki malaaka yi euh, seeni mbir xaybu la lu mel ne ki àjjana ak safara euh, seeni mbir xaybu la moom la ñuy wax ci tubaab l'invisible waaw beneen bi itam mooy xaybu mën nay tegtale loo xam ne lu nara ñëwi ca kanam la yàlla subhaanahu wa taala leeral ci alqur'aan ne lii dana ñëwi wala yonente bi sallallahu alayhi wa sallam leeral ci xadiis ne lii dina ñëwi waaye nag ak seegul comme lu mel ni ki yawmal qiyaam kooku xaybu la mbokk yi dunduk àdduna si lu waaye gàtt gàtt xel xam na ne saxul waaw xam na ne saxut ndax la yàlla subhaanahu wa taala daan wax rek ne xalaqakum summa yumiitukum summa yuxyiikum summa ilayhi turjaun yàlla nee na maa leen bind maa leen bind ba ngeen amagut waaw maamal leen ngeen di dund ci kaw suuf bu àpp itam maa leen di faat bu àpp matee maa leen di faat waaw bu ma leen faatee ñu dugal leen ci suuf bu ñu leen dugalee ci suuf ngeen nekk fa nekk fa nekk fa ba saa di jot saa mooy assaa muy yawmal qiyaam bu saa jotee ma dekkal leen génne leen ci suuf yóbbu leen nag ca bërëbu àttekaay ba dajale leen daal leen di àtte kon mel na ni doomu aadama ñaari dellu cosaan ñi ngi koy xaar ñaari dellu cosaan waaw dellu cosaan gu njëkk gi mooy cosaanu matière matière muy jumtukaay bi ñu ko liggéeyee dellu cosaan bu ñaareel bi mooy cosaanu bërëb muy àjjana ja ñu njëkke woon waaw ci kaw ku dajeeg yërmaande yàlla ak ngërëmam waaw dellu cosaan bu njëkk bi nga xam ne mooy cosaanu matière mooy delluwaat ci suuf mas naa fekke ab rob ñu jox ma kàddu Euh, bokk na ca la fa waxoon ne ñun day léeg-léeg bu ñuy wax dellu cosaan dañ koy dëkkale fu mu dëkkut ndax ñun suñ nee dellu cosaan liñ ciy jublu li ci ëpp mooy ki koy def kiñ naan moo koy def demaat ca dëkki cosaani maamam sanc fa wala mu dem ca génti maamam dekkalaat ko wala yu mel noonu ma leen mën nañ ko ko tudde rekk ci waxin waaye dellu cosaan dëgg dëgg dëgg mooy lii ñu àndandoo di ko defal mbokk mii nga xam ne moo doon dundandoo ak ñun baag dundam egg fi ko yàlla matale ci àdduna mooy di ko jébbal borom bi waawow ku ñu rob ci biir suuf dëgg-dëgg kooku dellu na cosaan dellu cosaan gu mag ga gu mat ga gu wóor ga gu dëggu ga ndax yàlla moo ne minha xalaqnaakum wa fiha nu'iidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxraa kon dellu cosaan dëgg mooy dem ca bàmmeel ya waaye nag dellu cosaanuk bàmmeel Euh, mooy dellu cosaanu matière rekk ndax nit ci suuf lañ ko binde woon kon bu faatoo ñu delloo ko ci suuf ñu dugal ko ci suuf rob ko ci suuf delloo nañ ko cosaanam ci matière am matière première ba waaye dell cosaan nag ci bërëb mooy ku ñu àtte ay jëfam yu baax ëpp wala yàlla yërëm ko yóbbu gañ koy yóbbu aljanna delloo nañ ko cosaan ci bërëb ci dëkkuwaay ndax lan fa la njëkke woon laata ñuy ñëw àdduna waaye dellu cosaanu bërëb bala muy am muy waaji di am yërmaande yàlla ñu koy dugal àjjana wala boog ay bàkkaaram bari te yërmaande yi yàlla dabaatalu ko muy dem fa des muy safara yàlla nañ ci yàlla musal daa am lu koy jiitu muy àtte àtte nag ah tabaarakallaahu danañ tudd baat bi fii ci àdduna ah diw ak diw de am nañ problème diw de violé na diw de sàcc na diw de këpp na kees ña koy àtte ña ngi koy jugé ci tribunal nangam ak nangam waaw da ngay gis ne ko am contentieux ak justice ku am un dossier pendant devant la justice ku am jafe-jafe ak yoon ay mbokkam dañ koy yërëm waaw buñ ne diw mii yoon teg na ko loxo wala yoon jàpp na ko wala am na ay jafe-jafe ak yoon bañ war koo àtte ay mbokkam ay xaritam ay dëkkandoom dañ ko yërëm lool ba buñ mënoon a dox digganteem ak yoon dañ koy def waaye duñ ko man ndax sañuñu ko waaye nag pexe yeeg tollool dañ ko ciy jéem a dimbale di ko wutal ay ñaan tabaarakallaahu ak di ko ñaanal ñoom ci seen bopp ak di ko ñaanal intervention ce ñañ yaakaar ne ñoo leen sutub ñoo leen sutub loxo waaw waaye itam di ko wutal ay avocat avocat te moo ne day luy nuroog àtte rek moo am ci àdduna waaw xam nga léeg-léeg ñu àtte kenn tëj ko dem ba siàgg ñu ne may nañ ko liberté provisoire ma ne leen mais même àtte yi sax àtte provisoire la même àtte yi jugement yi jugement provisoire la ndax lu ñu àtte fii ci àdduna yàlla da koy àttewaat yàlla da koy àttewaat alaysa allahu bi ahkamil xaakimin yàlla rek moo mën a àtte àtte bu jaar yoon bu jaar yoon loolu nañ ko bàyyi xel kon yowmal qiyaam nag àtte ba fay am nga xam ne moo gën a tiis yu àdduna yii gën koo raglu gën koo mat ndax ki xam lépp lépp lépp moo fay àtte doomu aadama xam-xamam dafa tuuti lool lool lool wa ma utiitum min al ilmi illa qalila waaw loo def def ab gëstu loo def def enquête ci mbiri waaji lu tuuti nga xam ci moom réere ci moom lu bëree bëri yàlla nag moo xam léppi doomu aadama léppi doomu aadama alaa yaalamu man xalaq wa huwa al latifu al mbokk yi kon àtte bi yomal qiyaam lañ bëgg a waxtaane incha allahu rabbi ak euh, li ñu tuddee ashafaatul uzma muy ràmm mu mag ma ràmm mu ma waaw xam nga ko am fii ay jafe-jafe ak yoon ni muy def mooy wut avocat waaye àtte bi yomal qiyaam ba nga xam ne mooy àtte dëgg ba di àtte bu mag ba Euh, naam luy nuroog avocat dana fa waaye am nafa fa boo xam ne day dossier bu mag ba avocat bu mag ba rek moo koy gérer te mooy seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy saaxibu shafaati al uzma boroom ràmm mu mag ma waaw mbokk yi nañu gën a ragal yàlla te xam ne àdduna sii dey lu gàtta gàtt la àdduna sii dey jaaruwaay la waaye du saxuwaay ala kulli xaalin moo xam dund gi di yàgg muy yàggadi te yàggadi sax moo ci gëna a bari moo xam at yi takku moo xam at yi bari moo xam muy néew faaw rek dañuy masa faatu te faatu delluwaat ci borom bi subhaanahu wa ta'ala delluwaat ca moom mu dajale ñu ci benn bërëb nit du manke jinne du manke arab du wuute kudul arab du wuute jullit du ko rate yéefar du ko rate ba ci mala yi moo xam animaux domestiques yi moo xam animaux sauvages yi la moo xam njanaaw yi la ñéppay teew ci bërëb boobu ñuy àttee moo tax yàlla naan wa ma min dabbatin fi l ardi wala tairin yatiiru bi janaxayhi illa umamun amthaalukum maa farratna fi lkitaabi min cheyin summa ila rabbihim yuxcharuun yàlla nee na mboolem xeeti mala yi xeeti animaux yi ak xeeti njanaaw yi muy xeeti volaille yi kon mala yiy dox muy animo yi ak njanaaw yi naaw muy volaille yi nee na day am nañu lu ñu nuróoleeg doomu aadama illaa umamun amsaalukum am na lu ñu nuróoleeg doomu aadama ci wàllu bindin muy lan ni doomu aadama di soxlaa lekk noonu la mala yi di soxlaa lekk ak njanaaw yi ni doomu aadama yi di soxlaa naan noon la mala yi di soxlaa naan ak njanaaw yi ni doomu aadama yi di soxlaa di accouplé muy di sëy noon la mala yi ak njanaaw yi di accouplé kon yàlla subhanahu wa négligé wul benn détail ci téere bi téere bi bàyyiwul dara lépp luy régler àdduna ak alaaxira lépp lépp mu ngi ci téere bi waaye muy doomu aadama yi di mala yi di njanaaw yi kum ci mën a doon rek dinga faatu boo faatoo dinañ la ma sa dekkal yóbbu la ba ca benn ëtt ëtt booba nag fa la ñuy dajalee doomu aadama yi jinne yi mala yi njanaaw yi tabaarakallaahu yàlla subhaanahu wa taala atte mu nekk bés boo xam ne bés bu raglu la bés la boo xam ne aa bés la bu tiitle bés la bu tiisa tiisa tiis muy bés boo xam ne danga fa gis xale bu amagul vingt ans jeune bu amagul vingt ans bejjaaw ba weex tàll da nga fa gis jeune jeune bu amagul vingt ans laa wax de borom quinze ans wala borom douze ans wala borom sept ans sax nag mu jaaw ba weex tàll ba mel ne ko am soixante dix ans waaw donte des fois itam jaaw dana tegtale ak mag waaye itam des fois du tegtale ak mag itam waaw ndax mën ngaa gis koo xam ne ñaari nit kii bejjaaw kee jaawul te yàlla xam na ne ci at ki béjjaawul mat na bàyyi kibe béjjaaw waaw waaye daal jaaw tiitaange dina ko waral uh, stress dina ko waral nit bu stressé rek mën naa am uh, béjjaawam teel a ñëw moo tax yàlla ne fa kayfa tattaquuna in kafartum yawman yaj'alul wildaana shiiba waaw mu ne Euh, bisu yowmal qiyaam bu raglu boobu nga xam ne mooy béjjaawloo ndaw ñi nga xam ne moo gën a tiis ci bés yi ku koy diingat ku koy weddi ku ko gëmul kooku nan lay mën a ragale yàlla ragal yàlla day boo ko bëggee jëmbat ci xolub koo xam ne gëmul ne yowmal qiyaam day am gëmul ne dekk day am dangay sonn dong dong dong waaye doo def ci moom ragal yàlla lu jara bàyyi xel la mi ngi mel ne ngay ji ci ay karo ngay ji ci ay karo defe naa ne pour mu sax du yomb waaw moo tax yàlla ne fa kayfa tattaquuna in kafartum yawman yaj'alul wildaana shiba bisi yowmal qiyaam bi nga xam ne dafa tiisa tiisa tiis ba nga xam ne xale yu ndaw yi sax dañu fay tiita tiit ba bejjaaw bis boobu de ku ko gëmut dëgg-dëgg yow fexe ba nga ragal yàlla du yomb bis la bu nga xam ne Euh, jigéen bi tolloon diggante ki tollu diggante mooy ki ëmboon waaw ki nekkoon en état de grossesse mooy ki ëmb ki tolloon diggante dana tiita tiit ba ëmbam tuuru bi siyomal xiyaam jigéen dina fa tiit ba ëmbam tuuru ba mu avorté waaye itam di nga gis jigéen tiita tiita tiita tiit ba doomam jim gënoon a fonk am ci moom affection bu mat sëkk affection ba réer ko yërmaande yi yaay ci doom riir ba yaay téye doom di ko nàmpal di ko nàmpal ba si mu fàtte doom la téye woon ndax la muy gis ci ay mbugal ak tiis ak yu metti moo koy fàtteloo doom ja ba mu sànni doom ja nag waaw moo tax yàlla ne yaa ayyuhan naasu rabbakum inna zalzalata saacati shay'un cadim yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara nnaasa sukaara wa ma hum bi sukaara walakinna adaaba allahi shadid yàlla subhaanahu wa taala nee na yéen nit ñi ragal leen yàlla te ngeen suuraale ne dund gi yemul àdduna suuraale ne itam ku dee jeex na yéen a ko foog rek waaye dee taxul mbir ya jeex suuraale leen ne dee dekki lu am la kon na ngeen suur ñaar rek benn dund gi yemul àdduna ñaar dee dekki lu am la waaw te danañ leen dajale ci benn bërëb bu ñuy wax euh, yawmal qiyaama bërëb bu ñuy wax mahshar ba bu ñu leen fa dajalee nag ñu war leen àttee bërëb boobu ñu leen di àttee muy saal ba nga xam ne fa la ñu dajale nit ak jinné ak mala yeeg njanaaw yi yàlla war leen àtte bala ñuy am yàlla génn di àtte danañ fa taxaw taxawaay bu yàgg dund fa ay tartar yu metti dundu fa ay tiis yu jéggi dayo waaw yàlla di joxe misaal ci tartar ak tiis yi am yowmal qiyaam ne bokk na ci da nga gis jigéen bu téyee doomam di ko nàmpal ba si yàgg mu jàkkaarloog ay mbugal ay tiis ay tartar yu raglu ba mujj fàtte doom ja ba yërmaande yaay ja mu waroon a am ca doom ja yërmande jooja réer ko mu daal di ne wër doom ja daal di koy sànni yaay juy sànni doom ndax tiit yowmal qiyaam lañ koy gisee de waaw da gis jigéen boo naree laal doomam li muy wax sama doom ji de bul ma ko rayal man waaw bul ma loral sama doom ji de teggil ma fi sama doom ji de waaw ka wax bul ma loral sama doom ji bul ma rayal sama doom ji teggil ma fi sama doom ji yowmal qiyaam nag mooy tiite tiit ba ne wërru doom ja sànni muy benn waaye da nga gis itam ku tollu diggante jigéen bu ëmb nekk en état de grossesse mu tiita tiit ba avorté ba avorté ba tuur ëmb ba nga gis góor goo xam ne day dox di kayang kayangi di jeex jeexi di daanu mel na luy tërëf mel na luy fakkastalu nga naan mu waay xanaa kii dafa màndi walla mu gens wala mu dorogewu fekk màndewul gensul dorogewul waaye mbugal ma mu gis moo ko dépassé mbugal ma mu gis moo ko ëlëm yowmal xiyaama ngoog bés la boo xam ne kon ay njàqare la feese ay tiitaange la feese ay tartar la feese ak i mbugal te nag lay tax ñu mën faa mucc dey lay tax ñu mën faa mucc la lay tax nit mën faa mucc du xaar ba bis ba jot mu koy soog a liggéey waaye fii ci àdduna lañ koy liggéeyee soog a dem ca bés ba nag waaw fii ci àdduna lañuy ñuy liggéeyee lay tax ñu mucc ca tartar ya ak njàqare ya ak tiis ya nga xam ne ñooy am ci yowmal qiyaam liggéey bi nag weesuwul lu dul wéetal yàlla gëm ko teg ko fi mu teg boppam waaw wéetal yàlla gëm ko teg ko fi mu teg boppam wala buñ ko mënul itam ñu wàcce ko wàcc waayam suñu kemtulaay kàttan waaye itam di ko topp nag takku ci di ko liggéeyal di ko jaamu lu mu santaane ñu góor góorlu ca lu mu tere ñu góor góorgóorlu ci bàyyi ko waaye nañu topp yitam yonentaam yi mboolem yonente yi mu yabal ci ñun la ko dale ca suñu maam aadama wala nuux alayhim assalaatu wassalaam ak yonente yépp alayhim assalaatu wassalaam waaw te yonente yooyu nag ki ci mujj te message am gën ñoo concerné mu nekk message bu universel bu éternel mooy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokki yowmal qiyaam mooy bés ba yàlla di dajale mbindeef yi yowmal qiyaam mooy bés bu raglu ba nga xam ne yañ fay gis ci ay mbir yu raglu doomu aadama du ko mëna a ndax lan dafay jéggi dayo dafay kawe kàttanu doomu aadama doomu aadama du ko mën a supporter moo tax am na ci yenn ci aasaar yi boo demee ci baadul aasaar ñu ne am na benn waay bu daan wax ne bu daan wax sax da ko daan wax waxiinu ñaan ci formulu ñaan da daan wax naan allahumma arixnii min haada almawqifi walaw ila annaari dannan minhu anna jahannama ahwanu mimma huwa fiih wa dalika min shiddati alkarbi ñu ne bu dinga gis waajoo xam ne day jànkoonteeg aki tiis ak i tartar ak di gis yu raglu ba day mujj ñaan ñaan gi muy danaan yow yàlla ay waay tee nga ma musal ci taxawaay bu yàgg bii ak tartar yu doy yii may jàkkaar lool donte sax danga may jële fii ci pénc mi yóbbu ma safara sax bëgg naa man ndax lan la muy gis ci ay tartar ak itiis ak yu raglu da koy dépassé ba mu mujj yaakaar ne buñ ko yóbbee jahannama safara mooy gën a noppale ci moom ah yowmal qiyaam nit dina fa gis ay tiir ay tiis ak i njàqare ak i tartar ba mujj muy ñaan yàlla naan koy tee nga maa jële ci pénc mi taxawaay bi yóbbu ma safara sax ndax laan jàpp na ne euh, buñ ko yóbboo safara moo koy gën a noppal que ñu bàyyi ko muy jàkkaarloog tiis tiis ak tartar yooyu nga xam ne moom la doon gis ci pénc mi bu ko defee nag ah, taxawaay bu yàgg boobu nga xam ne yàgg nañ koo waxtaane kuy topp suñuy waxtaan miin nga ci ñun kàddu gi mooy yowmal qiyaam benn bés la waaye wecci na juróom fukki junniy at benn bis la boo xam ne yàgg na ni juróom fukki junniy at yàgge comme ni ko yàlla waxe taaru taarujul malaikatu war ruux ilayhi fi yawmin kaana miqdaaruhu xamsiina alfa sana waaw benn bis la boo xam ne wecc na wecci na juróom fukki junniy muy yàgg na ni juróom fukki junniy at juróom fukki junniy mooy cinquante mille ans waaw su ko defee nag jullit ñi danañ jànkoonteeg taxawaay bu metti ak ñaq ñaq wu bari da ngay gis koo xam ne ñaqam day toll ci cheville yam cheville mooy dajoor dajoor koo xam ne day ñaq yitam ba ñaq ba egsi ci óom yi nga gis ka kaneen ñaq ya ñaq wa egsi ci ndigg li am koo xam ne day ñaq ba ñaq wa tolloog baat bi am koo xam ne day ñaq ba faf lap ci biir aw ñaqam waaw ça dépend rek ci bàkkaar yi ni ñuy wuutee ça dépend ci nit ñi ni ñuy ëpplante ay bàkkaar rek noonu lañuy ëpplante ëppalantee ñaq wuy génn ci ñoom waaw ñuy mujj nag ne siiwee ñu àtte leen ba ñu jógee ci taxawaay bi donte sax dañuy dem safara sax dañ leen da koy jaral te moo ne am na nu muy demee sax la leen di xaar safara nag mooy gën a metti waaw ndeysaan saam defee nag ngir ñu mën a am yàlla àtte ñu ñu jógee ca taxawaay ba Euh, bu fekkee dem àjjanaa cay tege ci ñenn ñi ñu dem àjjana bu dee dem safara cay tege ca ñeneen ñi yàlla nañ ci yàlla musal ñu dem safara ngir ñu am chance boobu kooku seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam dong moo mën a saraxu yàlla moo mën a ñaan yàlla ba mu àtte ñu loolu la ñu a ashafaatul uzma muy la grande intercession wala la grande intervention muy ràmm bu mag ba dossier bu mag boobu moom avocat bu mag ba baatu avocat bi ma utiliser nag waxin la rek avocat bu mag ba rek moo ko mën a régler muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li lay wan ne moom dong moo ci man dara moom dong moo mën a saraxu yàlla ñaan ko lewaayoo ak moom ba mu àtte jaam ñi mooy lan laata jaam ñi di dem ci moom di ko jàmbat seen tiis dañuy njëkke ci ay moroomam bàyyi moroomam wane seenug tële tamoo ne moroomam yooyu di wane seenu tële mooy ulul azmi ulul azm min ar-rusul waaw ñooñu yàlla tuddoon ca sharaa lakum min ad-diin maa wassoo bihi nuuxa walladi awxaynaa ilayka wa maa wassaynaa bihi ibrahima wa muusa wa isa waaw ndeysaan ibrahima nuux ibrahima muusa isa ak muhammad sallallahu alayhi wasallam ñooyu ñooy ulul azmi mais ulul azmi yooyu nag nga xam ne juróom lañu juróom lañu ulul azm nuux ibrahima muusa isa muhammad moom la ñuy tuddee les gens de décision waaw boroomi dogu yi ñu am dogu ñu am décision lañu waaw ñu am détermination lañu ñooñu nag juróom lañu waaye ku dul ku dul sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci juróom ñooñu day danañu essayer dem ci yow danañ jéem a dem ci yow sàkku ci yow nga ñaan borom bi mu àtte jaam ñi ba ñu mucc ci taxawaay bu yàgg ba tametti waaye ñeent ñi moom kenn ku ne dana wane ak tële aywa mbokk yi loolu nañ ko càmbar nañ ko gëstu nag nañ gëstu ca xew-xew boobu nag ak ni jullit ñiy jaaxlee di dem ci yonente yi ñu gën a yaakaar ñoom ñëpp ñu wane seenug tële ba mu des Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu suñ ko bëggee gëstu nañ ko laaj Abu Hurayra waaw nañ ko laaj Abu Hurayra saxaabi bu mag boobu dañuy jële ci Abi Hurayra mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañu ko masa indil ndawal laxmu ba ñu ko indilee ndawal ñu daal di koy jox tànk ba ndax bokkoon na ci lim gënoon a sopp yonent bi sallallahu alayhi wa daal di cay bég lool waaye mu ñam ci tuuti bam ca ñamee tuuti xadis bu gudd a gudd la moo tax dama koy wax ci olof nii rek waaw léeg-léeg mu mos ci ay baat yenn yenn baat ci arab ca la leen wax ne ana sayyidu nnaasi yawma alqiyaama wa hal tadruuna mimma daalik waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yowmal qiyaam du ma fa doon moroomu kenn maay fay chef yowmal qiyaam maay sangum ñëpp maay chefu ñëpp duma fa doon moroomu kenn waaw daal di cay teg ndax xam ngeen loolu nu muy demee ndax xam ngeen yowmal qiyaam nan laa fay ñàkke moroom nan laa fay wane ci kàttanu yàlla ne maay sangum mbindeef yépp ñu ne ko xamuñu ko de mu ne suñ ca jàmm yàlla dina dajale nit ñépp mbooleem ku mas a jaar àdduna ñu fa njëkk a ñëw ba yéen ñii di dund ak man ba ñi nar a ñëwaat ba ñi nar a ba keroog saa di taxaw ba keroog yomal xiyaam di ñëw yàlla day dajale ñëpp ñu njëkk ñeeg ñu mujj ñeeg ñi ci digg beeg ñëpp la yàllay dajale nit ak jinneeg malaaka yeeg mala yeeg njanaaw yi ñëpp lay dajale dajale leen nag ci benn bërëb benn pénc ndeysaan pénc moo xam ne tabaarakallaahu bu ñu fa dajalee bu kàddu jibee fa kàddu ga bàyyikoo ba ka mujj ca mbooloo ma ñépp a koy dégg waaye itam boo dawalee sa bët ba fa sa yam ki njëkk ci mbooloo mi ba ka mujj ñépp ngay gis ndax bërëb ba moo moo doon bërëb boo xam ne dara sutaatewul dara pàntul bërëb bu tolloo la bërëb bu tolloo la sutaantewul pantul waaw moo tax boo yëkkatee kàddu boo jibalee kàddu li ko dale fi nga ko jibalee ña fa nekk ba ña mujj ca mbooloo ma ñëpp a koy dégg boo dawalee sa bët li ko dale ci ki ngay njëkk a xool ki njëkk ci sàppe si ki njëkk ci ran bi ba ko mujj ñépp ngay gis ñu ne déetawaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne bis booba yàlla day wàcce jant bi ba boo yëkkatee sa loxo laal ko ndaw tàngaay wu tar ndax damaa xam ne jant bii nim ñu sonale ci tàngaay léeg-léeg tamu mu sori ñu ay junniy junniy kilometre ah dëgg-dëgg bis bu ragloo ngoog nag bu ko defee nag nit ñi jaaxle suñu jaaxlee nag ci la ñuy wax kàddu gi ñoom ñépp nit ñi nag xoolante ci bët daal di waxante kàddu gi ne ah lii ñuy dund de kenn du ko nettali sa moroom ndax ñun ñépp ko yëgandoo te xam naa ne yàgg na te metti na te ñun itam wax dëgg yàlla amuñu kàttanug dékku ko tee ñoo seet koo xam ne dinañu tane ci yàlla tee ñoo seet koo xam ne moo ñuy raw ci mbaax raw ñu ci xam-xam raw ñu ci njub raw ñu ci jëfe ndigal yi ak bàyyi tere yi ñu sàkku ci moom ah mu mu saraxu yàlla rekk ba mu jële ñu ci bërëb bi àtte ñu donte dañuy dugal safara sax fu ñu mën a dugal baax na ah bi ñu waxee loolu ñëpp maase ne ah loolu de solution la loolu de xalaat la kenn ku ne wax sama morom ne waaw léegi kan ngeen di yaakaar ne moo ciy tane yàlla nii mu mere nii mu mere tey kan ngeen di yaakaar ne moo man ci moom dara moo jubóog moom ba man ci moom dara ñu xalaat xalaat xalaat ba si yàgg seen xel daj aadama ñu ne waaw nañ dem làmbu aadama ba xam dina man ci lii dara ñu maam aadama ne ko anta abul bashar xalaqaka allahu bi yadihi wa nafaxa fiika min ruuxi wa amara almalaikata fa sajaduu lak ishfi lana ila rabbik ala tara ila ma naxnu fihi ala tara ila ma qad balagna fa yaqulu adam inna rabbi qad gadiba alyawma gadaban lam yagdab qablahu mislah walan yagdaba bacdahu mislah wa innahu qad nahaani an alshajarati fa asaytuh nafsi nafsi nafsi idhabu ila gayri idhabu ila nuux buñ demee ci aadama ñu ne ko yow aadama yaay suñu maam yaa ñu meññ ñun ñépp yàlla moo la bind ci loxoom waxin la wal ci yow ak ruuxam waxin la mu sant malaaka yi ñu sujootal la kon nag demal nga liwaayoog boroom bi ñaan ko mu àtte ñu ndax taxawaay bi yàgg na waaw li ñuy jànkonteel moom kenn du la ko nettili ndax teg nga ci sa bët aadama ne leen ah li ngeen wax lépp de dëgg la waaye tamit de dinaa leen ci yokkal leen de yàlla tey de nii mu mere musu koo mere mer na mer woo xam ne musu koo mer te du ko masa mereeti merub tayam bii daal wala merum tayam mii daal tey lay njëkk te tey lay mujj te man dama ko tooñoon nag ndax ba ma dugalee àjjana am na garab gumma tere woon ne ma bu ko sax jege te juum na ba lekk ca loola ak moy man lool laa tal xawma loola nu koy lijjanteeg man man daal bëgg naa leen dimbule waaye dama leen a tanewul sama bopp laatal sama bopp laatal dem leen seeti kaneen daan ne tee ngeen a làmb nuux ba xam mu tane ma ci ñu daal dem ca nuux kon aadama moom teel naa wax ngantam moom teel naa waneg tëleem ñu dem ca nuux ne ko yaa nuux innaka anta awalu rusuli ila ahli ardi wa qad sammaaka allahu abdan shakura isfa' lana ila rabbik alaa tara ila ma nahnu fii fa yaqul inna rabbi azza wa jalla qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu wa innahu qad kaanat lii da'watun da'awtuha ala qawmi nafsi nafsi nafsi idhabu ila ghayri idhabu ila ibrahim ba ñu demee ca nuux ne ko yow nuux yow la yàlla njëkk a yónni ci kaw suuf yow la yàlla tudde woon abdan shakura muy jaam bu gore bi jaam bu mën a sant yàlla jaam bi delloo njukkal yàlla jaam bu bi kon nag demal nga liwaayoog borom bi demal nga saraxu borom bi demal nga ñaanal ñu intervention ndax li ñu nekk metti na tar na yonent yàlla nuux ne leen sama borom de tey mer na mer boo xam ne wala meer moo xam ne tey la ko njëkk a mer te tey la koy mujj meer merum teyam mii daal tey la njëkk te tey lay mujj te man sax daa am lu ma dal dama am lu ma doy soxla nag muy lan Euh, yàlla dama yónni ci aw nit ma waarate luy tolloog junniy at yu manqué juróom fukk fa labisa fihim alfa sanatin illa xamsiina aama aw kama qaal ma waaraate mille ans yu manqué cinquante ans junniy at yu manke juróom fukk ñu dëgër bopp ne duñ ma topp waaye ba ma demee ba jaaxle ci ñoom damaa ñaanoon yàlla mu alag leen histoire bu gudd la mu alag leen waaw te booba dama waroon a muñ loolu itam xaw ma nu ko yàlla di lijjanteeg man di waaw man am naa lu ma doy sëtt sama bopp daal laatal sama bopp laatal seeti leen kaneen de waaw ba leen waxee seeti leen kaneen mu tegal leen ca ne tee ngeen a làmbu Ibrahima ba xam moom duma ci tane ñu ah, nañ demati rek ñu dem ci suñ maam ibrahima ne ko yaa ibrahim anta nabiyullahi wa xaliluhu anta nabiyullahi wa xaliluhu min ahli l ard isfa lana ila rabbik alaa tara ila ma naxnu fiih fa yaquulu lahum inna rabbi qad gadiba alyawma gadaban lam yagdab qablahu mithlahu walan yaghdaba ba'dahu mithlah wa inni kuntu wa inni qad kuntu kadabtu thalatha kadibatin nafsi nafsi nafsi idhabu ila ghayri idhabu ila Musa alayhi salatu wassalaam suñu maam Ibrahima moom it dañ ne ko yow Ibrahima yow la yàlla dëyoon yow la yàlla dëyoon waaw yow la yàlla waxi woon rek yow la yàlla tànnoon ci sa ñoñ jamono te ñi nga bokkaloon jamono ñuy dund ñuy dundandoo ak yow ci kaw suuf ñu bari lañ yàlla teggi fi ñépp tànn la def la ngay xaritam defe naa nag xarit moom war naa man ci xaritam lu ne am déet kon nag jàpp nañ ne yow mii daal njàqare tar lii ñuy jàngoonteel ak tiis wii daal man nga ñu cee génne demal nga ñaan sa xarit mu ràmmuñu demal nga ñaan sa xarit mu àtte ñu boog ndax li ñuy dund moom kenn du la ko nettali yaa ko tegal yaa ko tegal sa bopp sa yaa ci tegal sa bopp sa bët gisal nga ko sa bopp yonent yàlla Ibrahim ne leen ah damaa xam ne day borom bi tey mer na mer moo xam ne tey la ko njëkk a mer te tey la koy mujj a mer waaw te meram wutar wii ànd ak ma tooñooñ ko tooñ ko ñetti yoon damaa xamul tooñaange boobu nu koy lijjantee ñu ne ko noo ko tooñe mu ne wax naa lu dul dëgg ñett yoon ñetti yoon yooyu dama koy tënk rek benn bi mooy euh, mbokkam ya ba ñuy dem ci àll ba di feete seen xërëm yooyu di def seen tuur yooyu ñu bëgg ànd ak moom te moom wax dëgg yàlla loola dalul xelam mu jox leen ngànt bañ nekkoo nañ dem mu ne inni soqiim damaa feebar mu laytoo feebar ngir ñu man koo bàyyi ca kër ga ba du mën a e, jaamu ji xiram yooyu foofa dafa wax lu dul dëgg ngir mucc te loola itam donte da koo defoon ngir lu baax waaye xamut nag nu ko yàllay àttee looloo tax taluta ñaanal kenn intervention muy benn beneen ba itam mooy ba ñu demee ba ci àll ba di jaamu seeni xëram bàyyi ko ci kër ga ne ko gar gardeel ñu suñuy yàlla gardeel ñu suñuy yàlla mu daal di toj yàlla yu ndaw ya bàyyi fa yàlla ju mag ja wékkal ko xepp bi ñu ñëw ne ko waaw yow kan moo toj suñu yàlla yi dane yàlla ju mag ji moo toj yàlla yu ndaw yi te foofu da leen a bëggoon a yedd ni leen laaj leen yàlla ji pour lan pour ñu delloo si seen xel xam ne ñu ñàkk bopp te lii ñuy jaamu teguwul fenn muy lan muy yàlla daal bu eggee ci boo ko laajee du la mën a tontu kooke yaa ko jàppe yàlla waaye du dara waaye nag donte lu baax la ci jublu woon donte waar la ci jublu woon a ah, wax na loo xam ne safaanoon ak dëgg rek ndax bañ ne koo ko def suñu yàlla yi nii daa waroon wax ne man la waaw waaye ba mu leen waxee ne yàlla ju mag ji moo toj yu ndaw yi donte nag waar leen la ci jublu woon ak yee leen ak yeddi leen waaye daal xamul nu ko yàllay atte muy ñaar baneen yoon bi tamooy mooy yoon bi nga xam ne ci la yonente yàlla ibrahima alayhi salaatu wassalaam waxe lu safaanoo ak dëgg mooy bimuy dox doxam yooyu di gàddaay ba wara a agsi misro te mooy égypte jamono jooja égypte amoon na buur boo xam ne ku mënoon a jaay doole la ku bewoon la diktatër la bu doon jamonoy tey jii bokk na ci buur boobu li mu gënoon a mane mooy nangu soxna si jaambur moom daal ku mu gis rekk ku mu gis daal nga yore soxna soo xam ne xemeem na ko yomb na mu jaay la doole jéem koo nangu te yonent yàlla ibrahima alayhi salaatu wassalaam bi muy dugg si misro muy égypte mi ngi àndoon ak kenn ci ay soxnaam te moo di saarata mu yëg ne nag buur bi nekk fii day jaay doole te bokk na ci lim gën a mane nangu soxna si jaambur bu ko xemee xemeemee ci la yonent Yàlla Ibrahima dugge Misra nag takk der yi dogale ko garde rapproché yi buur bi gàngoor gi armée bi dogale ko moom ak soxnaam Saarata ñu daal leen di jàpp yóbbu leen ca buur ba waaye yonent Yàlla Ibrahima ngir bañ buur bi nangu soxnaam soosu di saara te dafa lal pexe dafa wut lay rek ku mu tegal buur bi muy lan buur bi dane ko jigéen ji nga àndal salan la mu ne ko innaha uxti maanaam mu ne ko sama mbokk la sama sœur la booba nag yonent Yàlla Ibrahima lam ca jublu woon mooy sama mbokk la ci pas-pas sama mbokk la ci diine waaye nag xam na ne moos su ko waxee noonu buur ba moom euh, du ko déggee noonu am xelam eggul foofu day teg ne rek sëram la ci ni ñuy déggee sër muy kum bokkal ndey wala baay wala ndey ak baay waaw ndeysaan waaye keroog nag buur ba jéem naa nangu soxna sa waaye yàllaa ci àndul ba ni buur bi jëlee benn ci jaam yi jaam yu jigéen yi muy haajara may ko saarata ba ni ko saarata mayaate ibrahim jox ko ndigal mu jël ko mu nekk ñaareelam loolu histoire bu gudd la waaye taxuñoo jóg waaye li ñu soxla woon rek mooy comme dañuy wax ne yonente yàlla ibrahima alayhi salaatu wassalaam euh, wax na lu safaanoog dëgg ñetti yoon ñu wax leen ñaar yi kon bii mooy ñetteel wi muy lan ànd naag soxnaam bañ na buur bi nangu ko mu lay buur bi ne ko sama mbokk la sama sœur la waaw moo tax moom yonent yàlla Ibrahim mu ne leen man dey wax naa lu dul dëgg ñetti yoon taxaw ma nu ko yàlla lijjante kon nag sama bopp laa laatal dem leen seeti kaneen daal ne tee ngeen a làmb Muusa ba xam duma ci tane ñu ñëw ci Muusa ne ko yaa Muusa anta rasulullah faddalaka allahu bi risalatihi wa bi kalaamihi ala annaas ishfa lana ila rabbik alaa tara ila ma naxnu fii fa yaquulu inna rabbi qad gadiba alyawma gadaban lam yagdab qablahu mithlah wa lan yagdaba bacdahu mithlah wa inni qad qataltu nafsan lam umar bi qatliha nafsi nafsi idhabu ila ghayri idhabu ila isa bni maryam yonte yàlla Muusa bi ñu ko làmbee ne ko yow Muusa yow la yàlla yónni woon jox la mission nga di ko ko doxal yow la yàlla waxaloon yaa dëyante ak yàlla yàlla wax ak yow ngay dégg kàddoom kon ñaanal borom bi mu ràmmuñu ndax li ñu nekkee métti na yonent yàlla Moussa ne leen suñu borom merum tayam mi tey la ko njëkk mer te tey la koy mujj a mer te man sax damaa mas a faat bakkan te teguma ko woon ci yoon amuma woon sañ-sañu faat ko amuma woon ndigalu faat ko kon nag sama bopp sama bopp waaw dem leen ci Isa ibnu Maryam ngir indi ay leeral ci fi yonente yàlla Muusa alayhi salaam wassalaam faate woon bakkan dañuy fàttali ne yonente yàlla Muusa alayhi salaam wassalaam firawna ko yaroon te képp ku la yar ba nga doon mag fawu nga ko faaw kersa dox sa digganteeg moom te nag firawna nguuram googu ci ay caaxaan la tegu waaye teguwul ci dëgg te li war a daaneel nguur googu yàlla mi ngi ko nara a jaarale ci yonente yàlla Muusa alayhi salaam wassalaam te bu kerse gi wéyee rek ngir yonente yàlla Muusa daaneel nguuru Firawna du yomb yàlla nag indi mbir moo xam ne ca la kerse gi doxoon ci diggante Muusa ak Firawna war a jaare dañ muy dafa am benn bis mbokkum muusa ak mbokkum firawna di xeex muusa yam ca xeex ba mbokkum muusa woo muusa ne ko kaay atte muusa bam ñëwee atte atte mbokkum firawna ma dëgër bopp moom yonente yàlla muusa alayhi salaam mu dóor mbokkum firawna ma dóor boo xam ne ci yoon ci li normal wërta mën a rey ginaar waaye yàlla jaare ca mbokkum firawna ma daal di cay faatoo mooy li yàlla waxee ne fi yàlla wax naan fa wakazahu muusa fa qadaa alayhi qaala haada min amali dóor ba taxul mu mettee noonu sax nag waaye daal ca la mbokkum firawna ma faatu euh, muusa lii day jëfi shaytaane la pexem shaytaane la kon loolu soxla woon fi yonent yàlla Muusa faate woon bakkan waaw moo tax moom biñ ko waxee ne ko tee ngaa dem saraxu borom bi tee ngaa dem ràmmuñu yàlla atte ñu mu ne leen ah man day am na lu ma doy sëkk ndax mas naa faat bakkan xaw ma nag maa ko tey wala teyuma ko waaye lu ci mën a am daal xaw ma nu ko yàllay àttee loolu sama kumpa kon nag sama bopp laatal sama bopp laatal ni leen dem leen ci yonent yàlla isa ndax xëy na mu man ci lu ma manul dem leen ci yonent yàlla isa ndax xëy na mu man ci yàlla lu ma manul ci moom ñu ñëw ci isa ibnu mariam ñu ne ko yaa isa anta rasulullahi wa kalimatuhu alqooha ila maryam wa ruuxun minhu rasulullah wa kalimatuhu alqooha ila maryama wa ruuxun minhu wa kallamta annaasa fi lmahdi sobiya ishfa lana ila rabbik alaa tara ila ma naxnu fiih fa yaqulu isa inna rabbi qad gadiba alyawma gadaban lam yagdab qablahu mithlahu qat walan yagdaba bacdahu mithlahu walan yagdaba bacdahu mithlahu walam yadkur danban nafsi nafsi nafsi idhabu ila gayri idhabu ila muhammad sallallahu alayhi wa sallam idhabu ila muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla Isa bi ñu ñëwee ci moom dañ ne ko yow la yàlla yónni muy benn yow la yàlla euh, dogal bi ngay gëne àdduna am nga ndey waaye amoo baay ndax yàlla dafa jël kalimaam ak ruuxam jox ko malaaka mu dugal ko ca biiru sa waajur wu tedd wa sa yaay ja di maryama alayha salaatu wassalaam yow yaay ki nga xam ne yow la yàlla mayoon nga nekk ab liir nekk ci berceau di wax ak nit ñi liir buy wax ak nit ñi ci kaw berceau kon yow yii yépp yàlla def ko ci yow dëgg-dëgg yi njort nañ ne mën nga ci yàlla dara demal nga saraxu ko rek mu àtte ñu demal nga ramuñu yàlla àtte ñu ndax li ñuy dund li ñuy dund yaa ngi koy gis ump la Isa ne leen yàlla mer na mer moo xam ne tey la koy njëkk tey la koy mujj a mer waaw ñu ne am na ñu ne moom yonent yàlla Isa tuddul benn bàkkaar nag bu mu def boo xam ne moo koy tiidloo waaye am na ñeneen ñu ne yàlla dane dane man man day sama gaa yi nee nañ mooy la yàlla waxoon ne a anta qulta linnaasi ittaxiduuni wa ummiya ilaahayni min duunillah muy lan am na ñoo xam ne dañu dañ naan Euh, yonent yàlla Isa am na ñu koy def yàlla muy Jésus Christ Maryama mi yaayam am na ñu koy def yàlla waaw am na ñu ko jàppe yàlla wala ñu naan sax doomu yàlla ñu ne loolu la koy la lay xalaat moom yonent yàlla Isa buñ ne koo demal ramu demal ñaan ñaan intervention yàlla àtte ñu mu ne ee eh, xalaatuma ko ndax lan sama gaay yi dañ may tëkkaleeg yàlla taman du yàlla te loola itam lu ñuy sos la waaye xaw ma nu ko yàllay gisee ak nu ma ci yàllay àttee looloo tax te lu ma ramm sama bopp laatal dem leen ca kaneen seeti leen kaneen te muhammad sallallahu alayhi wasallam laa foog ne ñun li ñu lott moo koy man fi ñu tëlee moom dong moo fay mane ah mbokk yi ñu daal di ñëw na kii daj dëpp gi ci avocat bu mag bi waxiin la nag waaw muy seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ñëw ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa muhammad anta rasulullah wa xaatamul ambiya wa qad gafara allahu laka ma taqaddama min dambika wa ma taaxar isfa lana ila rabbik ala tara ila ma naxnu fii ñu ne ko yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow la yàlla yónni de yaa mujj ci yonente yi la soo dee prophètes yow rek la yàlla jagleel ne la jéggal naa la bàkkaar yi nga jiital ak yi nga mujje bàkkaar yi nga def ba noppi ak yi nga defagul kon yow mi yaa ñu mën a génne ci fu xat fii ñu nekk waaw yaa ñu mën a génne ci xat-xat yi ñu nekk ak tartar yi demal nga ñaan sa boroom subhaanahu wa taala mu àtte ñu génn ñi ci lu ñu nekk seydina muhammad sallallahu alayhi jóg-jóg bu yiw dox-dox bu yaru dem ba ca suufu arash mu daldi yegg suuf daldi di sujuutal borom bi subhaanahu wa taala yàlla ubbil ko ay kàddu inspiré ko yàlla dey ko ay kàddu yoo xam ne kàddu yu mat la mu tagg yàlla tagg yu mat te rafet yoo xam ne kenn mësu koo tagg-tagg yu ni mel kenn la wax ba mu taggee yàlla taggam yu kawee yàlla ne ko yaa muhammad irfa rësak sal toata washfaatu shafa waaw ne ko yow muhammad sa tagg mat na jotal na siggil siggil nga jàkkaarloog man ta nga ñaan ma loo ñaan ma may la te koo ñaanal intervention ma ràmm ko waaw koo bëgg ma xettili ko rek tey boo ma ñaanee ma xettili ko yonent bi sallallahu alayhi nee na ma daal di yëkkati sama bopp ndax moom sallallahu alayhi wasallam moo koy nettali nee na ma yëkkati sama bopp wax yàlla ne ko ummati ya rabbal alamin wala ummati ya rabbi ummati ya rabb ummati ya waaw mu ne ko ah, yow yàlla moom yonent bi sallallahu alayhi mooy wax de xeetilil sama xeet rikki xel sama xeet dëgg-dëgg boo xeetilee sama xeet rek sama xel dal fa yuqaalu muhammad adxil min ummatika man laa xisaaba alayhim min albaabil aymani min abwaabil jannati wa hum shurakaau nnaasi siwa dalika min abwaab yàlla wax yi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam tànnal ci saw xeet jëmm yi nga xam ne luñ leen di xisaabe nekkul ci ñoom luñ leen di évaluer wala luñ leen di comptabiliser wala luñ leen di auditer nekkul ci ñoom ndax dañoo seet wicc nga ànd ak ñoom jaar ci bunt bi féete joor ngeen dugg na waaw tànnal saw xeet ñi nga xam ne dañoo set ba amul lu ñu leen di xisaabe wala ñu leen koy régler wala ñu leen koy auditer wala ñu leen koy comptabiliser wala ñu leen koy évaluer nga ànd ak ñoom ñu jaar ci bunt bi féete di joor dugg àjjana amuñu xat-xatloo amuñ buuxante amul dara amul bousculade waaye ñu ci des nag faaw ñu jaar ci yeneen bunt yi faaw ñu bousculer nag ñu xat-xatloo jaar ca suraat waaw ca la yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne walladi nafsi bi innama bayna almisraayni min masarici aljannati kama bayna makkata wa ximyar aw kama bayna makkata wa busra muttafaqun alayhi wallafdu lilbuxaari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na bunti àjjana ka yaatu nee na boo xoolee bunti àjjana nee na euh, boo boo taxawee ci porte bi jóge ci wetu ndijoor jëm càmmoñ nee na boo jógee fi nga jóge woon ba ni ngay egge mat na distance bi am diggante màkka ak Ximyar waaw distance su porte bi rek ni mu guddee mat na diggante Makka ak ak Ximyar wala diggante Makka ak Busro bunt boo xam ne nag day yaatoo yaatu ba toll ne distance su dëkk ak moroom ma wala réew ak moroom ma dëgg-dëgg kon mooy wane ne àddunaa ka ndaw àddunaa ka ndaw suñ kër yi nim ndawee rek ak bunt yi moo lay wan ne àdduna du dara kon jërte liggéeyal de àllaaxira jara liggéeyal yàlla la ma waxoon wabtaxi fi ma aataaka allahu daara al axira wala tansa nasibaka min addunia waaw kon yàlla ba muy wax àllaaxira la njëkk a wax de nee na suñ alal ji nañ ci liggéeyal àllaaxira soog cee xalaat a faj suñ soxlay àdduna kon ndeke àdduna loo fi mën a am rek ndeke dafa war a nekk jaamub àllaaxira di ko liggéeyal lu jar a bàyyi xel la tabaarakallaahu kon euh, mbokk yu tedd yi déglu nañ xadis bu màgg bii nga xam ne luy ami la te incha allahu rabbi la ca kanam rawuti bët ndax lan yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu ko nettali te yonente bi sallallahu alayhi yàlla nee na maa yantiqu anil hawa in huwa illaa yuuxa du waxe bànneexu kanam du waxe xalaatu boppam lépp lu mu wax rek ca yàlla la ko déggee képp kuy waaru nag nang ci waaru képp ku am jom nang ci waaru mbokk yi kon lii day wane ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi fi mu toll ci tedd nga ak màggaay kenn jegewu fa ba fay àgg ndax moom dong la yàlla may ashafaatul uzma muy ràmm bu mag bii kaneen bukk ci dub yonente du wàlliyu dub xutbu du kaneen loolu nañ ko gën a bàyyi xel bu baax a baax a baax mbokk yi waxtaane shafaa bi muy ashafaatul uzma ram yowm al qiyaam lu ama am solo la waaw te xam ko munta ñàkk nag xam ko lu war la ndax ñaari mbir waaw ñaari mbir yi moo tax waxtaane li am solo mbir bu njëkk bi mooy dana danañu yóbbe ci ñu am jom di liggéey ba mën a bokk ci ñi ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ramm may ñu am jom dem jàngi gëstu xam ci wan yoon lañuy jaar ba mën a bokk ci ñi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam di fonk ba leen di ba leen di ramm waaw mbokk yi ramm lu am la ramm lu am la ramm tekkiwul ne kii ramm day dogal ci palaasu yàlla déedéet waaye kii ramm yàlla moo koy rammuloo mi ngi mel ne rek benn école buy def cérémonie yu mel ne ay fin d'année yu mel noonu école yi def seen i fin d'année wala conférence wala ay cérémonie de clôture yooyu élèves yi def wala ay fin d'année ak yooyu comme niñ ko waxee mu am ay élèves yu ñuy primé di leen jox ay neexal ak i cadeau neexal yooyu ak cadeau yooyu ñu jël kenn ci parents yi ku farlu woon ne diw yaay jox élève sàngam prime yaa koy jox tekkiwul ne yaa ko jëndoon jëndoo ko mën naa ñeneen a ko jënd waaye itam tànn jëlaloo sa bopp décision ne yaa ko koy jox waaye Euh, direction école bi ñoom ñoo jël euh, décision désigné la nga joxe ko direction école bi wala équipe pédagogique bi ñoo jël décision ne ne ne ne ne yaay jox diw mi prime lu jar a bàyyi xel la kon ràmm lu am la waaye tekkiwul ne kii ràmm day forcer yàlla wala mu jël soiw boppam wala décision boppam ne day ràmm waaye yàlla mooy tànn kenn ne ko man de gërëm naa la. may naa la nga ràmm lu toll nii ak laa kon gëstu bunt bi li tax mu am solo mooy dalay may jomi liggéey ba bokk ci ñi ñi ñi yonente bi sallallahu alayhi di di ràmm lu jar a bàyyi xel la ñaareel bi itam mooy ñu bëree bëree bare bëree bari bëri dañoo réere wàllu ràmm ba mu leen doon dugal ci ak bokkaale gu réerey ndax jaamu ko ci xërëm yi li taxoon ñu daan jaamu xërëm dañoo tegoon ne xërëm yi da leen di ràmmu am na ñoo xam ne ràmmu dañ koy wute fu mu nekkul wala ñu déggee ko nu mu doonewul ba tax ñu jàpp ne ay xërëm day ràmm ñuy dem di jaamu xërëm yi ngir bëgg xërëm yi ràmmu leen wala ñuy jaamu ay nit nit yàlla ak i wàllu yu ngir bëgg nitu yàlla yooyu ak wàllu yu yooyu ràmmu leen léeg-léeg dañ cee dem ba cee def ay sacrifice nag waaw rayal ay sacrifice ak yooyu ay tuur loolu yëpp ak di leen defal ay nëzër ay vë waaw ngir bëgg ñu ràmm leen loolu nag bokkaale du ko féete kaw nag waaw bokk na ci li nga xam ne tax na yàlla mera mera mer ba wàcc ay yonente ngir ñu waar nit ñi ñu bàyyi ko ngir ñu waar ñu koy def ñu bàyyi ko wàcce ay téere ngir ñu leeral nit ñi ne lii kat jëmul kër yanuwul maanaa jagut ngir ñu bàyyi ko bu jaree xare sax ñu xareek ñoom ay yéefar ay yonente ay yonente xare naa ñoo ñoom ngir dox seen digganteeg jaamu xiram yàlla ne alaa lillahi diinul xaalis walladina attaxaduu min dunihi awliya ma nacbuduhum illa li yuqarribuuna ila allahi zulfa inna allaha yaxkumu baynahum fi ma hum fihi yaxtalifuun inna allaha laa yahdi man huwa kaadibun kaffaar kon yàlla nee na man yàlla man kase kase kase maa mën a fay ki may jaamu kon ku fi jaamu ku dul yàlla tabaarakallaahu yaa ngi nax sa bopp waaw mu ne nag jaamu ko ci xërëm yi suñ leen masaana laaj ne leen waaw li ngeen di jaamu lu ngeen ci jublu li ngeen di jaamu ci ay xërëm lu ngeen ci jublu ñu ne dañ leen di jaamu ngir ñu jegeel ñu yàlla ngir ñu jegeel ñu yàlla waaw ñu ne ah yàlla ne ah loolu day jagut li ñuy def day du dëgg te bu yomal xiyaamee dinaa leen ci àtte te man yàlla duma gindi kuy wax lu dul dëgg kon mbokk yi safaa muy ramm amul benn yonente bu ko moom amul benn malaaka bu ko moom waaye yàllaa ko moom yàlla nee na qul lillahi shafaatu jamia lahu mulku samawati wal ardi summa ilayhi turjaun nee na ramm ba ramm jeex yàlla ko moom yàlla moomee nguuru asamaan ak suuf te ñépp danañu faatu dellu ci moom loolu jara bàyyi xel la kon ki moom ramm mooy yàlla kon kuy ñaan ku la ramu ñaan ko ci yàlla ñaanal yàlla mu ramu la kon yow boo doonee élève ah école bi war a def cérémonie fin d'année la wala nuñ ko mën a tuddee nga bëgg ca prier demal nga ñaan ko administration école bi wala direction ba wala boo leen ko ñaanul nga def góor rek guy tax administration ba wala direction ba wala équipe pédagogique bi kontaan ci yow ba boole la ci ñi ñuy primé waaye bul dem ca parent yi de ndax parents yi kenn xamu ci ndax man maay jox kado kii wala kee bala ñu koo xam rek benn amuñu décision tànn ki ñuy jox prix ndax administration école bi ñooy décider ne kii mooy jox diw prix kii mooy jox élève sàngam élève sàngam kadoom waaw kon yow fexeel ba administration école bi kontaan ci yow rek waaw loolu ngay def kon nag fexeel ba yàlla kontaan ci yow te booy ñaanum ràmm itam fexeel ba liggéeyal yàlla luy tax yàlla may la yonente yi ràmm la fexeel ba wan yàlla luy tax yàlla boole laak ñu lay ràmm fexeel itam ba di ko ñaan yàlla subhaanahu wa taala waaw looloo tax euh, boo xoolee ci xutba bu njëkk bi ci liñ doon waxtaane sànq danga ci dégg yonente bi sallallahu alayhi wala xadis bi ñu doon waxtaane sànq xadis bu gudd boobu euh, da nga ci déggee ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ashaafiul mushafaa mooy aji ramm ji nga xam ne euh, moom la yàlla di jox ndigalu mu intervenir mooy sangu mbindeef yépp nag rawatina doomu aadama yi waaye taxul nag mu am dogalu mu am sañ-sañu jël décision ne mooy ramm kenn kenn kenn amul sañ-sañ bi amul fit bi waaw du ramm directement waaye dangay ngay gis ne laata muy am sañ-sañu ramu sax da koo ñaan nag da koo ñaan daa dem ba ca suufu aras mu tagg yàlla bàkk ko ba yàlla ne ko siggil loo ñaan ma may la koo saraxul ma xettili ko loo ñaan ma may la koo saraxul ma xettili ko kon ndigal la jot de loolu itam lu ci jar a bàyyi xel la kon nag miskiin yi ak ñu néew doole ñi ak ñi nga xam ne dañoo réere ak ñi nga xam ne dañoo réer waaw ndax ay miskin lañ leen di tuddee ñu pauvre lañ ñu néew doole lañ boo demee ba wéeroo wéeruwoo ci yàlla di wéeru ci mbindeef ku la gën a néew doole amut ku la gën a réer amut kon ñi nga xam ne dañuy jàpp ne ay wàll yoog ay nitu yàllaak ay gaay yu baax mën nañ leen a ràmmu directement ci seen sañ-sañu bopp ñooñu day nañu delloo si waa seeni xel loolu ak réer dong la kon ku bëgg ko la rammu rammu am na de waaye yàllaay rammuloo ñiy rammu ñiy rammu leen di jox ndigal kon ku bëgg ku la rammu nag jaamul yàlla tanga topp ko ta ñaan yàlla mu boole la ci ñi rammu waaye bu fekkee mbindeef nga koy ñaan wala ay garab ak ay tuur ak xiram su boobaa yow génn nga sax ci diine Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te kenn du la rammu te doo mucc waaw mbokk yi ku bëgg ko la rammu da koy liggéey de nekk ci lu baax. waaw rammu dañ koy liggéey waaw muy jaamu yàlla topp sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci àdduna sii nga koy liggéeyee waaye boo xasee ba dem yowmal qiyaam ba faatu te liggéeyoo ci dara bay way na mbuus médecine après la mort lay doon waaw benn bis maa ngi koy wax sama benn xarit ci benn soxna soo xam ne saan day faral di wane bëggam gum bëgg ci lislaam day faral di wane mbëggeelam ci lislaam di faral di wane cofeelam ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam di faral di wane ak ngëm ba da cee gaaw a jooy lool moom daal boo tuddee yàlla ak i kimtaanam léegi tey mu jooy boo tuddee alquran nga jàng alquran léegi mu jooy ngay wax kiraama yi yonente bi sallallahu alayhi léegi mu jooy naan ay waaye muhammad ni ma ko bëggee alquran dama ko bëgg man gëm yàlla rek laa def may wax sama benn waaye ma ne ko waaw xoolal diw mi ak ngëm yàlla gi muy wootee ak bëgg gi muy wootee ak cofeel gi muy woote naan yee yaay am na ko ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi waaye man li ma ci jaaxal mooy daa feeñul ci njabootam gi mu ne ma ci naka ma ne ko ndax gis nga kenn ci njabootam muy doomam yeeg sëtam yi kum ci jël yóbbu ko ca daara ja mu jàngi mu jàngi diine ñépp tubaab la leen jàngal ana doomam yi kan moo ci mën a fer iji kan moo ci fer iji kenn feriw ci iji kenn mënu cee liir alquran kenn mënu cee ubbi ab kaamil di liir ñoom ñëpp yarub tubaab la leen yar ma ne leen kon nag ma ne waa ji ne ko kon nag moom miy wane cofeel ci yàlla ak yonent bi ak alxuraan ak diine yu mel noonu na ci benn ci ñaar yi benn cofeel gi muy woote du dëgg wala boog xamul nan la ñuy soppe yàlla ak yonent bi ak alxuraan ak diine yu baax yooyu waaw kon cofeel gi muy woote du dëgg wala xamul nu ñuy soppe ndax bëri na kuy wanee ne sopp naa yàlla sopp naa yonente bi sopp naa alquran sopp naa sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ba mu jaral ko bënn bëtam di jooy ba mu jaral ko jël xaalisam di joxe ba mu jaral koy daanu jël te boo xoolee ay acte yi muy posé du wane ne moom kat cofeelam lu wér la du wane cofeel gu dëggu kon mbokk yi loolu lu jar a bàyyi xel la kon nañu ko liggéeyal bu baax ramm lu am la waaye ndigalu yàlla lay amee waaye ki ñuy ramm itam day góorgóorlu ba am lu ko manqué ba am lu ko manqué waaw buñ bu amee lu ko manqué nag ramm daal di koy mottali kon mbokk yi nañu taxawandi fii di leen ñaax ngeen abonné wu ci chaîne YouTube bi di yaatal xel xeltuyin di bàyyi xel waxtaan yi di commenter ak di di partager lien wu chaîne bi ak waxtaan yi ndax fi la njëriñee gën a yaatoo jaa ngeen jëf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.